non mbe ñanta kafla ñola ka kele non contanta bakele mbal be kontona opération no bakuya fana min fo eno katalalama wato wati na ñakam ñomoyla andum contanta ino mbe mo be kontona jambi bi no siyo akumatala andun ino nin ala sonta ino wo ñanta kela fenneti mi yalon ko ñanta ka continuer ma ñanna kela danna ñin dammala bawo nin kacaɓe kerin do ma faham andu ngawole jeje jama ma faham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 e na bota je ben na mol konto na min ya lon fara ton kolum suta tili ni nye konko e ka wille ya bulan noma e na nyo bato kan mbe be konto na mbe tentula ani min manna fatu soti because ni aje lafta je fola alkalo lo mi yalo ayan sembentu yale birin babukar futata na ni association ola min keda operation no so fenno mi yalom ayan a fana buka sino because ñaajele min keta président ti eh, e yaya jemme ala banko ya kanule so wo kuwo kan wala atina atela mara moo bije fo wol fana ya laa kan because yaya ate ñim be ceenol so wala atina birin dol fana ya ñin ka fo lo mborta kan ntata ña yitanda la because babukar bijan naabe ñoo kan toña toña nde be fondin kelu mbe danila e eh, ñin duuma silo mantora baale bige bari ni y'a fɔ dole ye i ka nendirole kɛ bari hani wo nte n kana moolu n ka yitandi la ko ñimu kafuleti fo ñan sabari ñoye n'i bɛ ɲatɔn ka y'a la i bɛ mɔ di a mun de ye kumaw bɛ fɔ ye bari foyi tɛ ye la i y'a nɛnɛ i bɛ min fɔ ye n y'a jɛ because mantoro min bɛ ɲin komasi lɔ a se n bɔ warita le ɲa mɔɔ sɔrɔ min y'a a bɛ ɲin kafo kɔnɔ le a taata nin duumasi lɔ la bari ala y'a kɛ bi a man sahaya wala a tɛ na a man nano bira a nata a nata kuluw ɲini a ye jalo soto a ye mɔɔ kɔnɔntɔ a ye wale dundi wo do kuwa la ala kuluw bɛ n'u ba kan bari ɲa hellɔ sɔtɔ mi y'a la a kɛta masiŋ la problème wɔt so ɲa safeero cɛ ma masiŋ sɔtɔ n'o fɔlɔ so min kumayata ñiŋ kuwo kono mbe min fo to to ñaalo ñaatonkoolu aniŋ branchol départementol doolu nte ko yalla faa jaabi kaŋ aniŋ eh, eh ka demaro dino youth sol la i sa jeno i si tenkun no ñaami kaatu ni ko mooye i kanta commencé lool nin fen t'a bolo ah toña toña n'a koliyata koliyata koliyata ay na do do je wala ka dun yin man toro be bari bi nin muta fɛŋo b'a bolo i sa je ni k'a ye taa ɲin commencé lool a ti taa bango président ɲaajɛ la a bɛ doko min na a bɛ doko min na a man kɛ komi a k'a ca faŋo le a ke aka murun tolle fawn kanko de woton tol fana manya na sila ka jibe o nyam ndol ibir sato de katala kungo tol nyama teo ni sibu kuwo ko be saji kuwo nkatala fonna ka ben aka nyin kodo din ada yan sute mol kono le sai so ka fo dol bi fara to famini alon fondin kelloet ni ka kaja ndol la meeting o meeting isalon ko mole be dunnan na ka fo kono na meeting o meeting yalo mole ka dun na ka fo kono operation no ba weto hiro so mbe al danila komi biyamula al be siari so mbal tentula mbal jayi nte to mu vie fatile de mbota farato nte be siri babu kariye farato ah, ma ngi nuyu ñep pour gàttal ko suma tur bi foog naa jaabi wax na ko pare Sèye Dramé maa ngi jógee NYSS di liggéey si bunti ndaw yi li ma bëgg a wax foofu noonu pour yokk si ñëpp li wax mooy opération No Bag With Europe liggéey la pour bépp doomi Gambien ak ku nekk doomi Gambien ndax lii xew ñëpp gis nañ ko ba pare damay sant yàlla ne balaa xëj na at yi nga xam ne si lañ gis xale yu bëree bëri ndaw yu bëri di am problème yu ñu am si gaal yi fekk na ñun président bi am jog na si opération No Bag With Europe bu yàgga baag wee ku ko mos a dégg xam ne du mos a nekk lu baax ndax soo amee kër. nit ñëwewut si bunti kër bi jaaree si bunti gannaaw bi soo ko gisee di nga ko yóbbu sàcc soo tukki tamit kenn bañul nit def ko ku bugg tukki soo amee chance mun ngaa dem tukki waaye du lu ñëw forcé su ma demee dëkk bu nga xam ne dëkkuma fa ma am problème pour ñibbi war naa forcé pour dem fu ma mun a jaar ma jaar fa pour ñibbi waaye jógee suma dëkka pour dem dëkki jàmbur warta nekk lu ma forcé naa xool yoon bu civilisé bu correct bu nga xam ne dinaa si jaar te du ma am problème dinaa am jàmm dem. ñi ma bàyyi suma ginnaaw seen xel dina dal ndaw yu bëri ñu ngi am problème di bàyyi seen kër problème ngir da ngaa dem si géej gi li fa xew ñëpp dégg nañ ko dafa nekk lu ñëw répit ñii di fa dee si géej bi ñii di gis lu nga xam ne duñ ko dee mën a xam ñeneen seen système bi sax baaxul pour géej bugguñ ko suñ fa duggee benn wan awa suñ ko fa defee am nañ problème stat di développe yu nga xam ne doo dee mën a understand lan la at the end of the day nga dem aaga foofu noonu di nekk moo nekk dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul liggéey lan mooy njëriñ yi NYSS si réew mi ku nekk xam na ko depuis 96 ba léegi li fi NYSC def nii di gis nañ ko kan moo ko fi taxawal yaay jàmmel national youth council li moo def si dëkk bi gis nañ ko net yi li moo def si dëkk bi gis nañ ko ak yeneen organisation yu nga xam ne ni mu ngi si bunti ndaw yi ñu ngi leen ko ubbil taxawal leen ko fa moo tax toujours dama dee wax ne bac bi ni liggéey la pour ministry of interior ak ministry of youth and sport ak di national youth mobiliser seen liggéey la pour ñu gën a sensitiser ndaw yi pour gën leen xamal lan mooy problème yi nga xam ne nek ci bunti démé yoon bu nga xam du yoon bu set bañuñ ko tukki waye fexel yoon bu set soko amé nga dem lu ndaw liñ la jox liñ dee wax toujours ndimbal na ci fekk loxol borom da nga jox pour def dara ñu mën la dimbalé so nekké ndaw nga dem school jihal school wala demulo school nga dem dara jihal nga dara lan nga wara dem def bul dem tok ne dama xaar pour ñu dimbalé ma suñ la always li nga wax rek mo nek ne nañu dimbalé nañu dimbalé dañu dimbalé wut bunta ñu ubbi ubbi lu melni taxawal ko fi di fa jël i ndaw di leen recruter di leen fa jàngal government dina taxawal NYSS ah lu dem si six weeks ndaw yi nañ fa nekk lu dem si ñaar téeméeri nit am une euh, plus xëy na ministry personnel yi fa dee nekk ak staff NYSS yi fiirin bi fa dee am yépp government moo ko dee responsible si poste la day jógee hmm. nga jógee foofu noonu ñu jox la euh, sa six weeks bi jeex na ñu ne la tànnal skill bi nga xam ne moom nga bëgg a def weda yow ñaw nga bëgg a def wala carpentry nga bëgg def mécanique nga bëgg a def lépp loo bëgg a def jox nañ la ko ne la jàngal loolu biñ la ko joxee government mu ne ba tey bugguma buutul nga fay ko pour loolu noonu free education moom nga am si lii nii yaa xam fan lañ tànn pour yóbbu la pour nga def ko fa government na la fayal free of charge doo fay buut ba pare every month government mu ne dinaa yëkkati 200 dalasi jox la ko pour dimbale sa waajur yi si laa yóbbu ndax kii ndaw yi dara ne loolu yëpp du ma fa am ak yow gannaaw boo jàngee ba nga xam ne li nga jàng mokkal nga ko su la nit dimbalee mu a jox na la ñaari at pour nga jàng bi nga defee ñaari at yooyu noonu ñaari at yi jeex nga gis sa boppa ne yow sa boppa li nga doon jàng dafa di sa mokk am na ay yoo xam ne ñu ci réew mi soo fa demee di continuer pour compléter li nga doon jàng dinañ la dimbale nga def ko nga dem foofu noonu mégal soo ne li nga doon jàng toppa nga ko ba nga am ne lii gis nga si bunta ne mun nga ko soo ubbee place di liggéey lu nga xam ne li nga jàng da nga ko mun ku am liggéey dina la ko indil waaye soo ubbee place te li nga jàng mokkaluloo ko ku am liggéey dina la teggi dem jox ko keneen ki mun sànniwul xaalisam bi government mu ne amuma ak yow foofu noonu gannaaw bu ma la joxee ñaari téeméer yooyu noonu pour weer bu nekk pour nga di ko yokk sa paas bi gannaaw boo jeexale sa ñaari at soo bëggee nga binda dinaa la dimbale ma jox la loon nga dem liggéeyal sa bopp pour taxawal sa bopp ndax li nekkul ndimbal nañ li nga xam ne mooy njëriñ bi ñu am ci réew mi ñu gis ko te mu nekk suñ njëriñ ñu topp ko jàpp si loolu noonu suñ ci de suñ ci demee lu mu yàgg-yàgg buntu dina feeñ am tukki yoon la bu nga xam ne ni bés bu jotee ci doomu aadama bi li ma dee wax di nga fa dem dëkk bu sa yàlla def sa añ wala sa reer lu mu yàgg-yàgg di ko añ baa nga reer ko nit tukki na te xamul li ko tukki loolu fan la jógee xëy na ñu toppatool ko yoonam mu dem mu amee fa li mu bëgg si nit jël na xaliss bu bari def ko ci yoon dem jëriñut ko man iñaan na pour jël 10000 dollars sax diko def ci yooni bag wi waxuma la di jël ñaar fukki junni ak juroom di def si ban yooni bag wi xalaatuma ko ndaw yi am ñu bari bari tay ñi ngay gorlu pour di gëna waxal seen moromi ndaw yi ndax ñun tay suma dem hedna na ba ma paat na ak oppression no bag wi Europe dama gis ne bunta la bu nga xamne ne man dama ci am ci pour di def biko depuis 1997 ba léegi maa ngi bunti ndaw yi di liggey mu NYSS under ministry of youth and sports jaabi ma gis li moo liggéey ak ndaw yi ci suñu waxtaan man ak moom ma gis ne war naa mën a liggéey ak moom ma continuer am lu nga xam ne maa ngi ko doon def ci lii su ma gisee ku nga xam ne ñu ngi ko taxawal mu jiite loolu noonu dama koo gën a support pour jàppale ko because ma maa ngi daan toog mhm. nga baaral ma maa ngi daan toog di gës gis ay ndaw yoo xam ne nekkuñ si dara di toog di waxtaan ak ñoom indi leen ba ñëw NYSC jàngee fa ba amee fa métier tey ñu ngi taxawal seen kër jëriñ seen bopp loolu government président ko def programme bi le président